Je ne ko ban serigne je ne di journal bi dama bi ko ko bind donc si nag en fait ni amna luñu bëgg après je dis non man je ko bind je man xam non lutax ne ko xam parce que yow ngay liggé xana liggé fi mané ko wi mais man commercial la après ci la ci la ci ci la jógee na kan moko bind avec un ton beaucoup plus menaçant ma mais je sais pas Je ne kan directeur directeur bi new fi man fi comprends mu ne ma sëñ Moustapha ngeen di nekk fii di tuumaal di nangam sangam rek ñu commencé saga. donc c'est ça noonu la ñu commencé commencé saaga rek jël affaire yi dóor fii commencé sànni fii toj fii expliquer jàppal baal ñoom te ñuy saga di menacer donc euh, après oui j'étais seul bon je pouvais pas parce que waa ji gis naa affaire yi xawoon na gonflé tuuti donc xamoon lu muy wax donc mun moon réagir après non la ko déggee muy wax après ma ko pourtant fi dé ñuy saaga sëriñ bi amu fi ndax man talibé la ak war na sëriñ Babacar genre je lui dis ça quoi mu ma am nga chance looloo lo sauver santal yalla comprend ne mo bo len waxatee sëriñ bi nangam sangam rek dinañ nangam sangam après ci lañ génnee waa nako jël ko en photo mu jël mo en photo jëlat mo en photo donc wa jël nañ sama photo jël nañ sama photo donc euh. légui ñi fi ñëwoon ñaata lañu buñ leen di compter bon ay 5 ans 5 5 nombre de cinq moom. ils étaient cinq. Ah, cinq waay. Uh-huh. cinq Euh, gannaaw bi nga xamé né dem nañu lan mo nekkoon sa réaction ndax amul lo xamante ne peut-être agressé nañ lako physiquement. non non non ils ne m'ont pas touché ils ne m'ont pas touché ils ont juste détruit les trucs là kii nañ ko après ne ma tu as de la chance nangam sangam affaire yooyu noonu après ñoom ci la ñu wàccee ah man ba ñu wàccee man j'étais quand même serein bon en fait tiituma ragaluma dara ah. Uh-huh. tiituma parce qu'ils n'ont pas ils ne sont ils ne s'en sont pas pris à moi. Uh-huh. donc euh, tout tout toj nañ si des nag ils étaient beaucoup plus violents y a un gars bu gën a ñuul donc voilà, loolu kay pas trop donner des détails Ouais, effectivement dina am ñenn ñu ma ci mën reconnaître quand même quoi surtout surtout le cerveau ok merci